Euh, Paala nee na son bu invité sëñ daam sëñ daam nag euh, yeewi na soxna yu jinneem na leen beneen bet mooy daam taalibe yi waa déet xaaral xaaral rek alaaji paas ma ko sëñ daam dafa yeewi taalibe yi jinneem yëpp sëñ daam mu sell mu baax mi mm. ginnaaw bi mu leen yeewee mu ne yeewi na taalibe yi jinne yi tamit ba mu des cinq motif bi nag nee na tàngoor wi moo bari. non non deseetul dem ne ba mu des cinq personnes. personne nit la deseetul jinne suñ daam koy <laughs> amatul jinne <laughs> dane ba mu des cinq personnes alaaj waxul loolu de ba mu des cinq jinne dégluwaat ko dane de éliminé naa ci def ba mu des cinq xaaral rek Modou may ma ngir yàlla xaaral cinq personnes la xaaral rek Modou may ma suñ daam koy amatul jinne xaaral rek non non non non non non non non <laughs> ah kay suñ daam wax dëgg yàlla jot na sëkk nag ñu woo ko fee place de l'Obélisque wut ay yar yu baax a baax a baax a baax a baax Assane na ma daal wax dëgg yàlla. ngeen ah, xam ne guddeeg altine bii ñu àll yeewi naa yëpp soxna yi jinne yeewi naa yëpp. bi ci toppaat tamit taalibe yi jinne yi wàññi naa ko ba mu des juróom juróom ndax lu tax loolu mooy dama gis ne askan wi tàngoor yu ma amee ci ñoom dafa xaw a jéggi dayo te jinne yi buñ xattaloo loolu moo war a may jug taxawaay yooyu loolu ma doon dama mujj wàññi taalibe yëpp ba mu des juróom cinq <laughs> cinq personnes. léegi moom waxul loolu. cinq personnes léegi di moom ay nit ay nit la de daa ma sa am i jinne. sëñ daam <laughs> daa xam nit la def. c'est que day gis ay nit mu yaay jinne yi ñëw ay nit la yaa gis naa ay jinne. sëñ daam de yàlla xam na ne muusu am siiru mu mag. <laughs> bu fekkoon nga toog nga doog si néeg muy waxu daw génn. non yàlla xam na non Assane. am siru mak sa lu la ci leer da nga ma sa gis jinne dama man man sama jinne yi sama man jinne seigne dam yi seigne dam nit nit nit rek lay gis ni jinne mais lan motax sénégalais mën a weddi no weddi wuñ dañu xam seigne dam yi dañuy bégal rek mom dañuy bégal rek ñu wax lépp dañuy bég dañuy bégal ñi ko andal ci di liggéey bég dong lañu xam xam seigne dam dañu dina dem si moom naan ko am ñaanal <laughs> seigne dam kay wax dëgg yàlla na tijji ab sitam rek tok Eh. am si ay wiyam di fayal loolu doon saa saa bàyyil di déggantu. ay personnes dong la yor de ay personnes. non non non dañu. jinne yi. waaw cinq rek laa ci dese. waaw personne bi dégg nga ko. jinne du personne. <laughs> daa war na yam si jinne yi rek bàyyi ah, personne bi. waaw jóg leen. jóg ah, leen waaw waaw waaw génn leen. am muus mu mag sax muus mu tëjal Modou tëjal. mu mag sax muus mu